góor gu nekk war ngaa mën a renforcer sa bopp ci sa wàllu néegu sëy maanaam am garab ak traitement yi nga xam ni daf lay may kàttan bu nga xamante ni macha allah maanaam garab bi xamante ni dafa lay dolli ci sa puissance ndax ñun ñëpp ay góor lañu lu ñu soxla mooy sexe bu dëgër dëgër këcc dëgër bu baax macha allah ba booy sëy doo gaaw wàcc ki nga ko sekkal di ci gis boppam yow it nga ciy gis sa bopp sexe bi am longueur bu baax am yaatuwaay bu dëgër bu yaatu macha allah am yaatuwaay bi xamante ni macha allah rabbi dina mën a satisfaire sa partenaire nga ciy gis sa bopp ki nga ko sekkal mën ciy gis boppam macha allah.